mbokki qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan borom bi tabaraka wa mu boole ñu defal tawfiix te ñu fa yéene àndaat ak yéen ci suñu dars albaas an faydatil xatmi أبي العباس لمؤلفه فريد دهره في العلم والدين وشيخ أوانه في تربية المريدين خاتمة المحققين وحجة العارفين ابن الشيخ الحاج عبد الله إبراهيم لا يزال بفضل مولاه في جمال جلاله يهيم suñu dars bi weesu ñi ngi taxawoon ci fi ñu Seydi Alioune Cissé radiallahu anhu doon jàngalee noo seet Cheikh ci Cheikh Ibrahim radiallahu ci ay woyam ak i nasram mu nañu nag walahu taalifun adida wa taqarirun kathira وأجوبة مفيدة وتقايد مقنعة جامعة لما افترق من نصوص الأئمة الهداة السرات الثقات بوكنا مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه أمنا أي تالف يبريبري أي تقريرات يبريبري موي ينكي xeetu masala yi nga xam ne ñëw na ci indi ci xam-xamam li ki noonu ay tontoom bëri na lool ci masala yi diine yi te am njëriñ dañuy doon ay tënk yu am solo waaye doon ay xujja yoo xam ne kuñ ko jox mu doy la moom Mawlana Cheikh radiallahu anhu bokk na ci ay taalifam taalif yi nga xam ne daf ci dajale texte yi nga xam ne suñu njiit yu jub yi nga xam ne ay siqaleen ci diine e, moom la dajale ba noppi soog a indi gis-gisam e, kaashiful albaas nag wa min ci ay taalifam kaashiful albaas kaashiful mooy wuññi lënt lënt yi nekk ci bopp nit ñi an faydatil xatmi ci faydatul xatmi bi abil abbas radiallahu an téere boobu ànd naag li ñuy tuddee tasyil téere boobu ànd naag li ñuy tuddee tasyil bokk na ci ay taalifu cheikh ibrahim radiallahu anhu muy masaratul majaami fi masailil jaami' muy téere bu am solo mu indi ci ay xam-xam yu ama ama am solo bokk na ci alxamrul xalaal fi madxi sayidi rijaal loolu bokk na ci ay téereem ci ay taalifam mu sàngara su dagan fi ci tagg ki nga xam ne mooy sayyidu rijaal sangi góor yi mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa bokk na ci ay taalifam taysirul wusul ila hadrati rasul yombal ak yegg ci feeb yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ay diwaan la yum way incha allah dinañu ñëw ci ay wayam li mu làmbool allah bokk na ci tamit tibul anfaas ci Bulaan Faas benn diwaan la bu am solo boo xam ne Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu mu ngi ciy tagg alxatm abil abbas fi Bulaan Faas fi madhil xat fi madaihil xatmi abil abbas radiallahu anhu bokk na ci tamit rawdul muhibbin fi madhi sayidil aarifin mooy tamit téere bu am solo la ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam بوكنتي النور الرباني في مدح السيد احمد التيجاني تيروام صلولا بوكنتي تامت روح الادب لما حوى من حكم وادب تيربو غين قام سيدي الفا سال ديكو جانجلي في في جروب بوكنتي تامت نور البصر في مدح السيد البشر اه، مومي تامت ديوان بوسيو خامنه E, gàmmukat yi moom la ñuy gàmmoo bokk na ci ak sirrul akbar sirrul akbar wa nuurul abhar muy taalif bu am solo boo xam ne Baay wax na ni waarit la boo xam ne moo wàcc ci moom tey tamit taalifu ko jaar ci baaxu taalifkat yi niki nonu talifu ko ngir konturkat yi kon daf ko talif ngir ñi nga xamne ño top ci yoonam moo tax téere boobu du téré sax bo xamne dañ koy ci wat euh bokku na ci al kibritul ahmar bokku na ci tamit tuhfatul atfal nga xamne daf ko def fi haqaiqil af'ali fi sarf ci walum sarf la ko def ci al mizan almizan alsarfiya بوكنا الفيد الأحمدي في المولد المحمدي لخرني رفق دك تي والو أي تالفم تبصيرة الأنام في جواد رؤية الباري في اليقظة والمنا يينيت ني تي قمال لن ني جادو نانيو جيس يالا تي يو ولا تي نلو لولتاني تالف وام صلو بوكنا تي روح الحب في مده القدبي متاجي في Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moola guñ ko woon ci jamono ji nga xam ne Seydi Alim Cissé mi ngi doon def tarjama fii waaye yeneen taalif topp na ci ginnaawam taalif yi nag yi ci ëpp ay way la yi ci ëpp ay way la ndax dégg ngeen li lim te bàyyi naa yu bare bari lu mel ni albayaan wa tabiyin ci tariqa tijaan bi niki noonu e, yeneen ak yeneen lu mel ni alxujjatul baaliga e, loolu yi tamit tanbihul azkiya yooyu yëpp ci ay téere yi mawlana cheikh cheikh cheikh ibrahim radiallahu la bokk waaye téere bi e, tarjama bi Seydi Alioune Cissé doon def ni yii la limoon ci jamono yooyu yii lañ moo la gum moo tax muy limoon yi waaye amoon na yu des yu bare bari yoo xam ne nit mën na koo jëriñoo ci téere Cheikh Ibrahim te mën nañ cee teg loxo ci jamono ji nga xam ne moom lañ nekk bokk na ci sarhul sarhu murhaf murhafatil qutta bi nga xam ne maam Khalifa Niass radiyallahu anhu moo ko taalif Cheikh a ñëw sàrf ko bëri na ñu ci topp waaye dañuy tënku rek ci li téere bi di jàngale ndax téere lañuy ñuy jàngal moo tax téere bi comme li ma bëgg a rek mooy jamono ji nga xam ne Seydi Aliou Cissé radiallahu anhu mu ngi def tarjama Cheikh Ibrahim fekk nañu téere yu bari moo la guñ leen moo tax tuddut leen kon yi ñu rek yooyu la tudd am na nag yu topp lu ci mel ni afriqiya lil ifriqiyin muy téere bu am solo boo xam ne Mawlana Cheikh Tidiane Ibrahim radiallahu anhu daf ko def ngir africain yi di wone ni pas-pas moom ci yàlla rek la war a aju waaye tamit réew mu ne ay doomi réew ma rek ñoo ko mën a jiite jëfandikoo seen xelaat ba réew moomu jëm kanam bokk na ci téere yooyu sabilu salaam fi ibqail maqaam loolu jamono ji nga xamee ni kilifay arabi saudi yi ñi ngi doon wax ci toxal maqaam ibrahim bàyyi ne leen loolu du ci dal ci la taalifee téere boobu sabilu salaam fi ibqail maqam eh, muy téere bu am solo téere yi may lim yëpp nag mën nañ cee loxo bokk na ci tuhfatul xaadira fi manasikil hajj la siyama fi taira muy téere boo xam ne dafa aju ci wàllum aj bokk na ci tamit nujumul huda fi kawni nabiyina afdalu man daa afdala man daa ila ila allahi wa hudan muy téere boo xam ne mu ngi ciy wax ak wahaabiye yi nga xam ne dañuy bañ maanaam awliyatug yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngëneel yenn ci ngëneelam yi bokk na ci téere yooyu alxujjatul baaliga fi kawni idaatil quran fi radio saaiga maanaam li gaa yi daan bañ bu njëkk jàng alquran ci micro bàyyi di ko indil ay xujja bokk na ci raful malaam amman rafaa wa qabada iqtidaan bi sayidil anaam teggi ak yeddaange ñeel képp koo xam ne dafa yëkkati loxo maanaam rafaa wa qabada dafa yëkkati baatam ci wax amin waaye yëkkati ay loxom qabdu ngir roy saydul anam bokk na ci yooyu aljawaabu saafi bokk na ci taarif yooyu aljawaab ashaafi bokk na ci yooyu tamit E, al saydul ahmadi yaakaar naa boobu limoon naa ko niki noonu ay leetaram yu bare bari bañ tënk ci ay téere jawaahir rasaayil am na e, ñeenti juzu am na ko te lépp ay leetaram lañ am na yeneen diiwaan nag yoo xam ne diiwaan dawaa win charia la yoo xam ne itamit Seydi Aliou Cissé tuddut ko sa Cheikh Ibrahim radiallahu anhu taalif na ko kon bëri na euh, am na sax ñu wax ni téere mi toll nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom kon nag euh, loolu nag lépp boo ko xoolee dangay gis ni Cheikh Ibrahim loolu lépp boo ko xoolee dangay gis ni Cheikh Ibrahim wax na ci fànn yi yëpp waaye nag dafa xóotal ci tagg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina wane mbëggeel bi nga xam ne am na ko ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ngay fekk ci biir yooyam qad istasala almahbubu jum kulli wa jumlati wa waasalani walxayriyaatu tawallati nga dégg bàyyi ne ki ma sopp mu yonantu bi sallallahu wa sallam jël na sama lépp jël na sama lépp jokkale ma ci jëmmam ji lu duwut moom sànni naa ko ci ginnaaw ginnaaw bokk na ci ay waxam wa inni ataani xubbuhu qabla nachati saraftu talidal xubbi fii wa taarifa ne man bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkal na ma lu jiitu sama sosu moo tax sama mbëggeel gi ma doon ak maanaam gu màgget gee gu bees gi yëpp jox naa ko ko kon gis nga mbëggeelam nu mu réyee ci yonent bi sallallahu wa sallam jël léppam delloo ko ko mais dem sax bay bay wax ni إيه، فإن رسول الله وهو مساعدي محيط بسر الله رب الخلائق يونس صلى الله عليه وسلم يقمن موي أجي ديمبل سما موي كي تي مبولم بوتن يالا يالا ميغا خامن موي بوروم بي نديفي مو يونس صلى الله عليه وسلم كي فاصون بو خامن نيو نغا غيس كو يونس صلى الله عليه وسلم لقد جاء قبل الكون في الغيب وحده بعز وتشريف وسر مخصص تستر في الألباس فالكون كله مظاهر ألباس لهذا المخصص تطور في الأطوار إذ كان وحده تنكر عن عين البصير المفحص من ينتبه صلى الله عليه وسلم لقد جعل ونديلنا قبل الكون لجيت نكتف في الغيب في غيب يتبع لك وحده ممدن في تدنغ في ترانغ وفي مبود مو خمنا يالله كو جغلال ne yonantu boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ki ki ki ki ki woddoo koddaay ya maanaam kiiraay yépp moom lañ xiir fal kawnu kulluhu mboolem mbindee fi mazahiru albaasin feeñuwaayu koddaay la li haada almuxassasi ñeel kii ñu jagle kon xam nga ni wax yi wax yu xóot a xóot lay bàyyi di wax mu ne tatawara fil atwaar yi développé na ci tawru yi azal nubuwa wilaaya ba ci xilaaf moom dong iskaana waxdahu moom dong moo fa nekk waaye nag tanakkara an aynil baxi basiril mufaxasi tanakkara ba mu demee ba feeñ màkka dafa làqoo dafa làqoo maqaamaam moo tax nga gis ku ko xool mu woola nga weddi kon loolu lu ama am kon dal bay ay taalifam doy na waar lool doy na waar lool luñ lim ak luñ limul lépp waye dal nañ xamni mom dafa labalon léppam ci yonantu bi sallallahu alayhi wa ba sax mu wax ni qad istagraqa alhaadi fuadi wa qad mahaq siwaahu bi qalbi xaalata alsahqi walmaq fa kaana maashi wa intiaasi bi dikrihi fa qulu jihaaran inna barhama نهاري كليلي لا أنيس سواه في قلبي دوما فهو بالمصطفى علق نيرون تبي صلى الله عليه وسلم ميما بغ لبال نسما خل في قلم بي مو إفاس لدود موم مو إفاس لدود موم حالة الصحق والمحق في حالة صحق أك حالة محق صحق ak maxqu ñaari baat yooyu daanaka benn la rek mooy xaala fanaaw rek fa kaana maashi wanti ansi bi sama dund ak li may dundee yépp mooy tàgg ko moom yonantu bi sallallahu alayhi kon nag yuuxu leen ci kaw ne barahama bëgg na yonantu sama bëccëg ak sama guddi ñoo yem képp aw ma benn wéttal xuduwut yonantu bi sallallahu alayhi wasallam yonantu boobu nag mooy ki nga xam ne sama xol bi ci moom lay aju saa ne kon dangay gis ni moom dafa jël léppam rek delloo ko sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ànd ni nag wax na ci anam yi yépp yëpp yépp yëpp yëpp kon nag euh, kon nag ala kullin loolu yooyu la Serigne Aliou Cissé tudd kon nag nañ xam ni def na yu bare bay yoo xam ne tuddut ko euh, moo tax mu ne معطف ناهيك منه شهادة بفضله وسمو شهادة بفضله وسمو مقداره ورفعة همته إيه، أن جعل الله منهلا للواردين أن جعله الله منهلا للواردين ناهيك منه نرى دايركت موم شهادة sahaadatan ay seede yoo xam ne boroom xam-xam ñoo ko seede ci moom bi fadli yi ci ngëneelam ak kawet dayoom ak yëkkatikoog yitteem doy na la ci rek yàlla def ko mu nekk rootukaayu ñi nga xam ne ñoo soxla xam-xam ci moom la ñuy roote wa mu ammalan lil wa mu ammilan lil wa mu ammalan lil muridin doon ki nga xam ne mooy mébétu taalibe yi assaalikiin ñiy way sóobu ci yoon yàlla wa riyaasan di aji xettali lil mustaxiisiin ñi nga xam ne ñoom ñooy sàkku xettali wa dofran di ak ak ak ab maanaam jotub càkkutéef lil aarifiin ñel aarif yi wa quutan di ab dund lil murmiliin wa ma xassahu llahu bihi min wuquwa il fayda mooy dund gi nga xam ne moom la arifi yi soxla te itamit yàlla jagleel nag na la doy rek ko yàlla jagleel tabbik faydu bi allati bi nga xam ne zakaraha al qutbul maktum maulana cheikh ahmad tidiane radiallahu anhu tuddoon na ko moom mi nga xam ne mooy qutbu bi di maktum ki xam ne moom lañ nëbb ci katmiyatu bi waaye wal xaatimul muhammadi mooy ki nga xam ne moo kaste wilaayatul muhammadi al maalum biñ xam kooku mooy kan si cheikhuna suñu sëriñ wa mu middu naa ki ñi tëbb abul faydi borom faydu borom bëbb yi maulana ahmad ibnu muhammad a tijaani ala yadihi maanaam faydoom boobu feeñ gim feeñ ci loxol maulana cheikh ibrahim radiallah وقد شاعت وتواترت بأنها تقع في آخر الزمان تفايد بوب سيون خبر المتواتر من خبار بو خمن بولو كوي سولو مي رويات البيك سينيون نفايد بوب لنا تابتي مجيك جمانو تأتي فائدتنا على أصحابي حتى يدخل الناس في طريقتنا أفواجا أفواجا وتأتي هذه الفائدة والناس في غاية ما يكونون عليه من الضيق والشدة لولا مولانا شيخ تجان رضي الله عنه وخل إيه، سيد طيب السفياني بمير كومنتير مني لولو دينا سوري الجمانو دو جمانو كون نيونا تي اخبار متواترة يوحني ان الفايدة تقع في اخر الزمن wa qad wasala ala yadayhi ila kamali almaarifa alayaaniya alshuhudiya ulufun baada uluf mawlana cheikh ibrahim ay junni junni ay millions yu millions sax ci ay nit amee nañ ci loxoom fatxu amee nañ ci loxoom matu xam yàlla janoo wa yatihi fi kulli yawmin xalqun kathir bis bu set yu bëree bëri ñoo koy dikkal wufuudan ala wufuud mbooloo ci kaw mbooloo baydaanan moo xam nit ñu weex lañ wa wala nit ñu ñuul yadxuluuna fi tariqatina ngir dugg ci suñu tariqa bi ak tijaaniya bi ko jag tijaaniyatu daatul minahi rabbaaniya tariqa bi nga xam ne ay mayu yàllaa ci laxasu wal mawaahibil irfaaniya tariqa bi nga xam ne ay mayab yàlla ci xam-xamu yàlla ñoo ci laxasu afwaajan ñu ñëw ci ay mbooloo afwaajan di ay mbooloo min jamii aqtaaril ardi ci mboolem goxu kaw suuf te noon la demee woon Cheikh am na taalibe fu ne te duut daf fi jógee mu soog a yaatoo noonu déedéet ba fi nekkee la noonu la yaatoo noonu إيه، ولا يأخذ عنه أحد هذا الورد الجسيم إلا وقد انتفع أمود كن كوي جري كي موم طريقة جانبي لدود دين جرينو وفاد منه المدد وسمدد دين راولي بان خمي الله وحلول مواطن العرفان تدين يجي كي بيب يالله يتيب قمي الله ولله در النونية المتقدم إيه، ذكره borom nuun ye bi nga xam ne moom lañ tuddoon sànq nga xam ne moo doon tagg Cheikh Ibrahim ci das bi passé xutbu tijaani yati shahiru wa taajuha wa imaamuha wa jududuhu tijaanuha moom i tamit moo waxaat ni yaa xayra man zajara al otaaqu lubaabuhu wala libaabihi yaa xayra man zajara al otaaqu libaabihi wa tanaafasat fi dawrihi rukbaanuha إن الخلائق فوزها فوزها في زوركم وبترك زورتها لكم حرمانها فازت بنفختك الخلائق واقتفى سودانها في زوركم بيضانها mu ne yow mi nga xam ne góor ci sa bi lañuy aji ziyaarekat yi di njëkkante sa buntu maanaam war seeni gawar di njëkkante sa buntu yow bàyyi mbindeefug yàlla yi ci ziyaare si la lañuy texe waaye ci bàyyi laa siyaare ci lañ leen di xañee lool nga xam ne mooy texe mu ne faada texee na bi nafxatika ci sab xëpp mooy sab madat mboo leen yi te xeeñcu na ci sa mëdët nit ñu ñuul ñi la ziyaare si ak nit ñu weex ñi la ziyaare si waaw xasanu tariq antam antum li muridikum la saxraha yaxsa wala alantum alantum li muridikum la saxraha yaxsa wala safwana maanaam Eh, yéen bàyyi radiallahu anhu yéene ñi nga xam ne yéenay génne seeni taalibe ci bi yoon bi ndax nooy ngeen ci kanamu seeni taalibe laa faxraha wal wala safwaana du caagin saxru eh, tariqa bi wala safwaanu tariqa bi maanaam ñi nga xam ne ñëw nañ indaaleeg dëngte bu ñëwee nga nooy seen kanam ba defar leen waaye ñi ñëw baaxoon sax ba pare ñëw di ut ndollant bu ñëwee nga nooyal ci seen kanam antal imaamu imaamuha wa tabibuha xirrituha luqmaanuha sultaanuha yow yaay ilimaan bi yaay ilimaanu tariqa bi yaay médecin tariqa bi yaay xirrit bi yaay gidd tariqa bi yaay buurab tariqa bi ولا أنت تبعها وقيصرها أنو شروانها ونجاسيها آه، خاقانها يو يو يا كي خامن يا قيصر طريقة يا أنو شروانك طريقة يا نجاسي يا خاقانو طريقة كون مقام يب مرانجل mu ràngal ko bàyyi kon bàyyi li mu bëgg a mune nak wo huwa bàyyi ku magla ci tariqa bi kon mbok yi ñu taxaw fofu inshallah ba benen yoon ñu ñëw ci li top ci lolu allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين